ndeysaan te doon jëmm ju baax ju ma bi daan mu boole ci ay yëf yu bari ngi koy fàttaliku boole bi ñu mujjee boole ma jëndee sama oto bi ma am mu ñëwee damaa ñëw di ko ko ko man de jënd naa oto mi ma am naa sama taal bi bu baax bu ñuy wax Lamine Diop négal jox ma sama téléphone daal di jël téléphone daal di koy woo bu ko sëñ Sall sama doom daa am ak oto bu ne ci port bi damaa bëgg mu génn ndeysaan mu jëf ci jëf ju rëy daal di ni ko cuun na wax li mu bëgg ñu def waaw ndeysaan dédouanement wu oto boobu ci jëmm ji la jaar hmm. te sëñ Béthio yëkkati téléphone am wax ko ma ne ko man de xam naa ko bu baax Lamine day jëmm ju baax la mu ne maa ah, xamante gën na nga jàppanteeg moom ndeysaan kon yow sëriñ bi daf ñoo boole ci lu yàggoon sa doxin bettu sëriñ bi rek la ma sa yitte keroog bi mu defee secret bi biir Madinatu Salaam ba ma toogee bokk nga ci njëkk yes lu ci la yemoo ci da nga doxee jëfe ko ba ñëpp xam yemoo ci loolu foo gis lu baax foo gis lu baax jël nga ko indil mbooloo bi saa su ne yaa leen di xiirtal ci man yóbbu nga ma fu nekk kilifa gi ma mujj yóbbu bu ma ko xamee yow yàlla ak yow muy xalifa sëñ Fallou di sëñ Abdou Fatah Mbacké ma dem fa mu teral ma teraanga ju rëy keroog bi ñu ma dugaloon añ bi ma doon jox ba fa duggee dama defoon ni mbooloo la ñuy jox am añ lu nekk ñu defal ma teraanga ju ne ñu jiir ma sëñ Abdou Fatah dem ba yëkk yi yére sëriñ Fallou Mbacke mu tedd jox ma ko ni ma solal loolu waaw danga maa defal loo xam ni mënalu ko sama bopp nga defal ma teraanga joo xam ni keroog ndindi lañ ñu yebal ndindi yëkkati dàll yi sëriñ fallu ak am mbubbam am naa ci sax ay nataal waaw mel na ni daal mbiri sonorisation moom war nañ ko lijjanti ñii daal am na matériel yoo xam ni yu adéquat yoo xam ni war nañ ko am yu xarala loolu taalibe yi nekk bitim réew di ma dégg maa ngi j'ai en face de moi euh, euh, Omar Seck Miss waaw mbokki Paris yi ñu ngi fi leen di jublu ci wutal ñu sonorisation bu am solo bu ko defee ñu ñu man ci ñu man ci ñu man ci jëfandiku ndax di wax muy tagg ak di def ñu daal moom moom moom ëpp naa def waaw moom daal buñ ci jógee nañu tàbbi ci sonorisation kon ma ma ma yeggale li ma doon bëgg a wax ci jëmm ju baax yi Serigne Abdou Fatah di porte parole Serigne Fall Serigne Abo voilà Serigne Abo sëñ Abou Fane teral ma teraanga ju rëy yóbbu ma nit ñi jox ma mbubbum Serigne Fall jox ma ay dàllam xam nga loolu ko la ko defal teraanga fa la mën a yem kon yow sa yéene ci man rëy na lii daa bokk ci li koy màndal nga jóge ci màggalu Serigne Touba bi ak li ci daj ndigal li ma ci joxe woon kenn mënu ci nga yoroon mbooloo di leen bernde ci màggal bi taranga yu bari yu may joxe biir Touba ci ay kilifa yow mii yaa ma ni maa la koy joxee am na kilifa yi mbàkke mbàkke yu bari yoo xam ne yónnee naa leen ay teraanga yow mii yaa ko jënd ci sax joxe ngir bëgg sama ndam yaa baax yaa yaa yaa gore yow mii yaa bëgg ndamul sëriñ Béthio te bëgg sëriñ Béthio rek la ko tegtal waaw ndax xam nga ni boo ma defalee loolu ma am ndam te bu ma amee ndam ndamul sëriñ Béthio waaw yow sa bopp ngay sagal man ngay sagal waaye sa bopp ngay sagal ba tax na sa jëf yi rëy na man maa ngi koy naw jëf ju ma naw jëf ju rafet nga def fi ànd ak sa mbooloo yëkkati ay koppar jox ma semaine bi yëpp ak ginnaaw màggal ge xat-xat yi nit ñi noppalikuwuñu loolee lépp gisoo ko keroog ba ñu màggalee ba ca suba ba tey yaa ngi mobiliser mu mi ci ñëw ñu siyaar si sa doxin rafet maa ngi lay sant bu baax sëriñ Béthio nag nga xam ni moo tax ngay def moom day am na tey te yéen de xam ngeen ci dara maa ngi ñaan maa ngi koy ñaan mu fayal ma mu defal ma la mu defalal ma la loo xam ni loo xam ci koon yokk say xéwal yokk sax man yokk sa wér jubal la ak sa njaboot yokk sa wërsëg ngi ñaan ci barke Serigne Saliou sa aju yëpp fan siyaar bi daal nga xam ni bëgg naa ba tey ànd kook Cheikh Ibrahima Fall Touba ndeysaan yaa ko baax moom it ndeysaan bëgg lu baax lool ndeysaan bëgg sama ndam moom foo ko fekk ci loolu lay dox muy jëm ñu baax waaw bëgg bëgg waa góor maa ngi lay sant maa ngi lay sant bu baax waaw ndeysaan ca six heures ba léegi ñu may woo dama wax ci fu ñu toll sëñ bi bàyyi baaw parce que comme ñaari famille damaa xaw a na jagat yi jàppoon nañ ne du ma ñëw ci saal waaw waaye loolu lépp jeex sëriñ bi sëriñ bi saafara na lépp maa ngi leen di sant bu baax na